أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين وصلوات الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم وعلى آله وصحبه ذوي الفضل الجسيم ورضي الله عن صاحب الختم المحمد الرباني تاج العارفين وإمام المقربين مولانا أبي العباس حسن التجاني الشريف وكل من له انتمى من الذرية والأصحاب أهل القلب والتداني وبعد asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, Pape Khalifa ñu ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax a baax fa tabarakallahu di ziyaara mbokk yi nga xamante ni ñoo teew fii mu jami sidna cheikh radiallahu anhu imam Abdou Aziz Dieng ak waa kër gi journaliste Ousmane Mbaye fa tabarakallahu question bi nga posé question bu am solo la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xajjatul wida la mu njëkk a dénkaane mooy uusil xalifata min baadi bi taqwallah moo tax ragal yàlla ku ko def rek mooy capitalu lépp mu teg ci wa usihi bi jamaatil muslimin ba xadis bi jeex kon ragal yàlla la njëkk dénk ci xalif bi nga xamante ni mooy ñëw ci gannaaw moom sallallahu alayhi wa ba pare dénk ko communauté musulmane bi kon lu am solo la mooy responsabilité wax nag respe bi nga xamante ni moo war a dox diggante mag ñi ak ndaw ñi mag ñi bàyyi xel ndaw ñi ndaw ñi jox respect mag ñi ñoom ñëpp ñi ànd week borom xam-xam noonu la koy toftalee ba xadis ba jeex fa tabarakallahu kii nag di suñu maam muy mawlana na Al Hadj Malick si radiyallahu anhu dafa ñëw roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu jeex tàkk mu waxoon ni moom du yonent du saxaabi yu waaye ëllëg fépp fu ñu teg seen tànk rek moom incha allahu taala bëgg na fa teg tànkam loolu kon mooy góorgóorlu nga xam ni nit li ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee rek man jadda wajada te man saara man saara ala darb wasal nit ki boo amee objectif nga am kóolute ni lii laa bëgg moom laa bëgg a du dëgg da koy daal di lan jot mooy himma aaliya himma aaliya la nit war di am loolu tax moom radiallahu taala anhu moom Cheikh Seydi Hadji amoon loola nekk ko am jom nag roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu jeex takk ci na ko yàlla waxe woon ni wa in tutiuhu tahtadu ku topp sallallahu alayhi wa sallam di nga gindiku moo tax nag moom mooy suñu njum mooy suñu torche mooy suñu lépp li nga li nga xamante ni yoon wu lëndëm wooy jaar te amul làmp wóoru du dëgg kon nag sallallahu alayhi mooy leer ji te nag ku xas ba gis leer nag yaakaar naa ni dootoo dellu ci lënd man absara <laughs> ila nuur la yaudu ila zalaam fa tabaarakallaahu mu jeex tàkk nag moom ci sallallahu alayhi wa sallam moom maam Cheikh Seydi Hadj Malick radiallahu anhu ba tax na période bii ñu toll muy gàmm gis nga nim ñu ko indilee ci jaamu yàlla dafa jël burd bi comme ni ko Pape Khalifa laaje burd muy téere boo xam ni Mouhamadul Bousayri yi moo ko bind ci yonent bi sallallahu alayhi wa tàmbalee ko ci amin tazakkuri jiraanin bi zi salamin mazajta damaan jaramin muqlatin bidami waaye nekkoon na di tagg yonent bi sallallahu alayhi ba ci biir mu ni fa mablaghul ilmi fiihi annahu basharun rek gag mu toog toog xamul lu mu ciy teg waaye yonent bi sallallahu wa sallam moo ko feeñu tontu ko ni ko wa annahu xayru xalqillahi kullihimi kooku mooy sallallahu alayhi wa sallam ba tax na burd moom dañoo wax ni Busayri yu feebar daloon na ko waaye la ko faj mooy burd bii manto ci gàttal lay firi yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko feeñu solol ko ko mu daal di wér kon li buur di mën a wéral bëri na te bi ci gën a am solo mooy lan topp sunna yonent bi sallallahu alayhi su ko defee dina lan éradiquer bépp feebar boo xamante ni nekkoon na ci yow ndax ku topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa gindiku te gindiku mooy di nga moytu def lu bon du dëgg di nga lu def lu baax dimbali nit ñi jox nit ñi respect koo gis jàpp ni moo la gën jàng di jëriñ société bi su ko defee nag na ko yoontu bi sallallahu alayhi wasallam waxe woon rek ahabbu ahabbu nnaasi ila llahi anfa'uhum linnaas mooy ki yàlla gën a sopp ci nit ñi mooy ki nga xamante ni moo ëpp njëriñ ci doomu aadama yi ci nit ñi fa tabaarakallahu moo tax maam Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu période bii looloo tax mu sos gàmm moom bi gën a siiw gàmm gi officiel mooy 1922 waaye am na lu ko jiitu na mu ko daan doxale moo da daan wokk mbokki taalibe mi ñuy jàng al alquran di def zikkar waaye bi gën a officiel mooy 1922 fële ca Tiwaawan muy fa tabaarakallahu jur lii ba ni mu ko saytoo mooy douzième jour bi la ñuy gàmm waaye dix premier jour yi dañ ci lan jàng burdu bi mooy di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba dixième jour bi jeex ñu noppalu onzième jour bi douzième jour bi daal di ñëw kon fa tabarakallahu euh, maam Cheikh Seydi El Hadji Malick radiallahu anhu avant dat officielle bi muy 1902 nga xam ni ci la officialisé gàmmu gi daal nay gàmmu avant loolu fa tabaarakallaahu daan ci ànd ak ay mbokk taalibeem yoo xamante ne dañuy toog di màggal guddi gi ci jàng alquran ak di fàttaliku jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax wa waajibun taatul haadi mahabbatuhu ca na mu ko waxee ci xilaasu zahab bi ci des mooy ñoom dañuy gis ni moyen bi gën a gaaw pour nga àgg ci sa borom mooy nga jaar ci sallallahu alayhi wa sallam ba wax na ko moom wa in turidan nayla alwusuli li xaaliqi alayka ala alhaadi salaatan tusibu kon nag dañ ciy dégg ni julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa lu màgg màgg la beneen bi nag mu ñuy fàggul loo xamante ni yiw boo xamante ni bu ñu toppee yoon woowule du ñu sànk mukk ndax ñun na ko Seydina Omar radiyallahu anhu waxe woon nahnu qawmun a'azzana allahu bil islaami mahma btaghayna al izzata min duunih aw bi gayri azallana allah ñun daal aw nit lañu woo xamante ni yàlla daf ñoo terale diine l'islaam ci gàttal lépp lu ñu sàkkooti lu dul loolu rek loolu mooy lan suñu suñu toroxte la ñuy la ñuy la ñuy wut te nag yàlla nañ ci yàlla musal moo tax mag ñi ku mel ni mag mu mel ni maam Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu ak ñi ko niru yëpp jëloon njaboot gi yëpp wommat leen nag ci lan sës leen rëkk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax jàngale mi yëpp jàngale mi yëpp mi ngi ko def ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaye mësul fëgg dënn nag mësul fëgg dënn lu dul ñi ni xanaa ba mu naan indiya asdaafun ngir ñi nga xamante ni dañoo nam ma jug ngir gëstu di yonent bi faneen mu ni moom ku ku yem fii rek dina doy di xam di nga xam lu bëri ci sallallahu alayhi wa sallam looloo tax nag mu jëlal ñu di jours yi nga xamante ni dañ ci jaamu yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa te gis ngeen li yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ni man salla alayya xiina yusbihu ashra wa xiina yumsi ashra adrakathu shafaati yowma alqiyama képp koo xamante ni xëy nga di julli ci man lu tolloog fukk ngoon gi nga koy def nee na ëllëg sama mu dana la dab beneen bi muy wax ni ku julli ci man benn ñu ñu fay la fukk waaye faral la fukki ñaawteef xam nga ni kon julli ci yonent bi sallallahu wa sallam am na doole ak beneen bi nga xamante ni ku julli ci man benn ñu julli ci yow fukk ku julli ci man fukk ñu julli ci yow téeméer ku julli ci man téeméer ñu julli ci yaw junni te ku julli ci man junni sa yaram araam na safara kon loolu rek nekk na loo xamante ni lu rëy rëy la jar na euh, dagg paas fii ba Chine fa tabarakallahu euh, kon ñi ngi ci euh, période boo xamante ni ku nekk war nga góor góorlu ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa guddi gu nekk guddi gu ne di ci jàng bu baax wala boog ci bëccëg bi comme ni nga xamante ne noonu la ñuy jànge burdu bi kon loolu ci gàttal mooy euh, message bi nga xamante ni xam naa dañ ko li ñu ko bëggoon développé sax fa tabarakallahu temps bi du ko maye waaye daal lii la Seydil Haaji Malik radiallahu anhu jël tànn burd donte am na xilaas te burdu ku koy jàng dana la fajal say feebar ndax bëri na ay secret dana la fajal feebar bi gën a rëy muy lan raxas sa jikko ba mu set te inna fil jasadi mudra ni ko yont bi sallallahu alayhi wasallam waxee am na suux wala lumb boo xamante ni mi ngi ci yaramu doomu aadama bu fekkente ni nekk na lu sell yaramu yëpp dafay sell dégg nga muy lan nee na mooy xol kon nag nit ki bu raxasee xolam fa tabaarakallahu day daal di lan neexa jëflanteel su ko defee yàlla di sawar di sotti kon ñi dégg ci ni burd mën na mën na résoudre suñu problème yi nga xamante ni moom lañu am ci société bi mën na réduire chômage mën na dindi nu mu ar rukudul iqtisaad yi mooy le marasme économique yooyu yëpp fa tabaarakallaahu ak les maux de notre société burdu ma ni mën na ko dindi dafa xat nag moo tax kenn mënu ko développe